ci jàkkaarloog yow ngir yegge la lenn ci ay baat yoo xamante ni sunu kilifa ci liggéey bi muy Cheikh Bakhoum di directeur général Sénégal numérique dafa am yéene ci ñu àggale ko mu bokk ci euh, di la yegge ni délégation bi mu àndal mooy waa Sénégal numérique employé mi yëpp cadre agent simple chauffeur gardien ñëpp ñoo bokk ñëw ngir li ñu bokk muy bisub suñu yaakaar tey ak ëllëg muy euh, xaadimu rasul bis boobu nga xamante ni ci leen jëm mu wax ne képp koo xamante ni di nga bég ci di ma jàppale ci cantal ma ci bis boobu damaa bëgg su bis bi jotatee nga am noo ci taxawee loolu nag nga xamante ni at mu ne mu def ko loolu moom la feddaliwaat tey jii bi ñu xëyee jaar na fee ci hôpital bi xaadimu rasul nemmeeku liggéey ba fa nekk waxtaan ak ñoom ci lépp li nga xamante ni moom lañ war mën a jàppale ci liggéey bi ndax mu dëppoo ak jamono ci xarale yu bees yi loolu it jël na ci engagement yu mat sëkk comme ni ko ko président dénke pour am ci taxawaay boo xamante ni Touba dina yëg ni lii ñu ko dénk Touba la cay wàllam ma ngi koy am ba am ci loo xamante ni sax dañu jàpp ni da koo yeyoo muy privilège loolu nag moom la moom la moom lañ bëggoon a àggale li ci des it délégation bi. Euh, ñi ngi ñëw ndax xat-xat yi dañoo jugee fële ci sëñ taxa di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wér ñenn ñi di ñëwandoo comme ni nga leen di gisee nii ñuy ñëw benn ak benn loolu mooy kàddu yi di wax ni Cheikh Bakhoum euh, mu ngi feddali wóllëreem ak yow coofeelam ak yow ndaxte xañ na sax ñu bari duñ ne du ñu gisee xalif bi rek mën nañoo dellu waaye coofeel bu am ci digganteem ak yow moo tax heure bu gisee xalif bi ni kat ah sama soppe ba bëgg naa gisanteek moom loolu nag mooy tànki tey yi nii mu tax mu wax délégation bi yëpp ne bala ñoo dellu ndakaaru na ngeen jaar su ko defee ma feddali kóllëre sama diggante ak porte parole sëñ Bass Abdou Khadre di la ñaanal nag sëñ bi yàlla yokk sa taxawaay yàlla may la kàttan yàlla may la wér gu ak gudd fan ndax xam na li nga liggéey ci yoon wi euh, da tiitaru yoonu murit nga euh, ndaxte koo xamante ni yaa yor kàddu xaadimu rasul loolu dara gënu koo féete kaw te kenn kenn naat table wut ni loo wax sëñ bee ko wax loo def moo ko def loo dox moom moo la ko doxloo kon loolu it jaadu na Cheikh Bakhoum ak cofeel bi nga xamante ni moom lay wax di digganteem ak yow ni mu ko defee nii daaw defewaat ko ren nii mu ñëw it feddali ko di ci di la ci gërëm di la sant ci ni ñuy dalale saa su ne ak xéewal yi nga xamante ni ñu ngi koy teg sa loxo te xam ne lépp ci jaam yi rek nga ko jëmale ak ci taalibe yi loolu it euh, lu mu def la loo xamante ni ngir jàppale la ci bis bi loolu mooy kàddu yi ñu jox euh, directeur général su ko defee moom it xañ na am na loo xam moo ko mën a fësal jërëjëf. di nuyu sunu kilifa bi ñu fi fekk peex ñu ngi lay ziar bu baax euh, di la gërëm aussi vraiment ci kàddu yu rafet yi ñuy seedal saa su ne. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax vraiment ci ci ci taxawaay boobu waaw fii moom bu ñu fi ñëwee euh, daanaka euh, du gulet euh, sëñ bi suñu sëriñ la suñu xarit la suñu waajur la donc nag délégation bi ma jiitee muy délégation wu Sénégal numérique bi yor lépp luy informatique télécommunication ci état bi Euh, chaque année nii la koy defe ñu ñëw fi nag pour fësalaat suñu kóllëre ak suñu taxawaay ci liggéey bi ci yoon wi rawatina nag ci wàll bu ñu yore muy wàllu télécommunication fii ci Touba Sénégal numérique bëri na ay projet yoo xamante ne def na ko fi lu ci mel ni tey caméra yi nga xamante ne defal nañ ko force de défense yi pour ñu mën a jàppale dëkk bi ci wàllu sécurité tey daanaka gox boo dem tey teg nañu ko fa beneen bi aussi lépp luy wàllu connectivité nga xam ne fibre optique moo ci ëpp solo fii ci Touba fibre optique bi egsi na fi ndax Sénégal numérique beneen bi aussi ci bërëb yu bari yu ci mel ni jumaa ji ak fii ñu ne ak bërëb yoo xamante ne taalibe yi dañu fay daje bëri na ay bërëb yoo xamante ne def nañ fa wifi boo xam ne gratuit la ci période màggal bi donc loolu yëpp def nañu ko ci ndigalu président de la république Macky Sall euh, di leen wax ne Sénégal numérique daal taxaw na pour def liggéey bi nu mu waree fii ci tuuba Euh, ñu ngi féddaliwaat suñu colère di tallalaat suñu loxo nga ñaanal agent yi nga xamante ne ñoom laa àndal yëpp collaborateurs yi ñoom ñëpp daal am nañu pas-pas am nañu yéene fii ci Touba donc daal gannaaw bu ñu ziyaare suñu kilifa bu tedd bi Serigne Mountakha ah jóge nañ foofu ñëw fii talalaat suñu loxo nga ñaanal ñu ñu ngi lay gërëm bu baax jëla sant wasalaam. Serigne bi mu ni salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ne sëriñ Cheikh Bakhoum yaa ngi ñu ngàndal sëñ bi ne mi ngi lay delloo nuyoo di ko teg ci loxol Cheikh Bakhoum directeur général Sénégal numérique yaa mbooleem nag ñi nga àndal ñëpp ci liggéey bi ne di la santaat bu baax ndax ni nga ko baaxoo at mu jot ne at mu jot nii nga def nga koy defee ne musoo koo soppi benn yoon ne loolu nag xam gi nga xam Touba lu mu doon ci Sénégal ak li mu doon ci réew mi ak sa cërub taalibe nee nga boole ñaar yépp di ci taxawe nii nga ci taxawe ne ba ci université bi ne li nga ci def lépp ne gis nañ ko ne caméra yi ngay wax itam yàlla def na ba nga koy bëgg a tàmbali ne ci moom mii nga ñëwoon wax ko ko ne mu tàggu ji sëñ bi ne sëñ bi joxe ci ndigal ne nga def ko ba mu yegg ne te njariñ li kat tàmbali naa feeñ xat ci li muy jariñ foofu ci dëkk bi kon ñu ngi lay santaat bu baax di la yóbbantim nuyoo ci seen doom seen xarit sëñ Ismaïla mi nga xam ne ci yow lay liggéey ngeen àndi ànd bu rafet ànd nga boo xam ne bii sédd nga sëñ Ismaïla sëñ Touba ne moom kat waxtu wu ne sëñ bi daf ko sëñ Ismaïla daf ko koy seereen ne sa sëriñu bopp di Cheikh Amadou Murtada moom sëñ Modou Bousso Dieng moom di léppam kon nag ne cër yi nga am ci moom daa bari ne Mbakke ñi ngi lay ñaanal bu baax Sëriñ Tuubaa taxawu leen gën leen a dimbali te téye leen boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.